noo ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ne mooy jël ay jamonoom gënale ko ci yeneeni jamono yàlla mi nga xam ne mooy jël ay nitam gënale leen ci yeneeni nit yàlla mi nga xam ne mooy jël ay barabam gënale ko ci yeneeni barab ñoo ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne ne yàlla examiné na ci ay façon yu bari sa yu ko examiné fay bokku ci ñi nga xamne ne dañuy am mention bi nga xamne ne bi gën ñuy ñaanal suñu serigne cheikh tidiane yalla dotiko dotti ko niiru ngërmandéem tidiane mom nga xamne ne suñu bundu ci yonent bi sallallahu alayhi wa باب النبي وباب الله جل man من دون فيض نداه الودق والمطر ñuy nuyu mbooloo mi yépp ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ci jiital ñi yàlla jiital ci jotaay bi sunu sang yi sunu sëriñ yi suñu kilifa yii nga xam ne ci tewayu sidna sidi ali haydara atijani ak ay domam yi nga xamne ne lañ bokal jotay bi nga xamne ne bi sallallahu alayhi wa sallam càllalaam dafa ñew comme ni ngeen koy waxe ba mu yegg ci sunu serigne cheikhu tidiane radiyallahu anhu muy ñaar fukki mam ak ñent bimu mu fofu tidiane ñew ngir sowe li nga xam ne moom mooy askan wi ci lëndëm ak réer daal leen indi ci xam-xamab leer ak njub Cheikhu Tidiane moomu moo ñu amal doom bu tudd Seydina Seydi Mouhamadul Habib nga xam ne mooy ñaareelu doomam nga xam ne mooy mujj meññi ji njabootam gépp moom Seydina Seydi Mouhamadul Habib at Tidiane seydina muhammadul habib moomu daal di ñuy amal doom bu tudd mawlaayal bachir mawlaayal bachir moomu daal di ñul amal doom bu tudd seydi mahmoud attijaani seydi mahmoud moomu amal ñu ki nga xam ne mooy suñu chance ñun waa sénégal walla sax ñun nit ku ñuul yépp muy chérif muhammadul habib attijaani mi ñu xam te mu ñëwoon fii ci sénégal daldi ñuy dëkkal mag ñépp fonkoon ko mag ñépp nawoon ko mag ñépp joxoon ko cër bi nga xam ne moom la maamam yonent bi sallallahu alayhi wa yelloo moom la maamam Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu yelloo këri diine yi ci réew mi ko ci tudd mu mu di fa ab njiit am na fu mu jaar ak Cherif Mouhamadul Habib at-Tijaani ci misaal boo xam ne buñ la ko nettali woon dangay yaakaar ne koku day amul ben serigne budul dul shérif Mouhamadul Habib Atijaani te nak amul ben serigne sax nak budul dul shérif Mouhamadul Habib Atijaani shérif Mouhamadul Habib Atijaani moomu moñu meñal njabot gi tok ci suñ kanam muy sidna sid Ali Haydara mii shérif Mouhamadul Habib moomu mo meñni sidna Seydi zainul Abidin mu meñal ñu Seydina Seydi Jalal mi tok Seydi Mouhamadul Habib moomu moo ñu meññal Seydina Seydi Tayyib Atijaani mu meññal ñu Seydina. Seydi Habib mi nga xam ne moom moo toog kon yonentu bee ngi nii toog Cheikhu Tidiane a ngi nii toog radiyallahu anhu fu waay di gàmmoo mën nga ne baatu yonent bi teew na fi kenn du ko weddi fu waay di gàmmoo mën nga ne sirru yonent bi teew na fi kenn du ko weddi fu waay di gàmmoo mën nga ne mbootum yonent bi sallam teew na fi kenn du ko weddi waaye nag Fi rek nak ngay gis ku ñemee wax ne jëmmi yonent bi ak ruuxoom ak aqlom ak qalbom ak nafsom yépp ñu nak moma bokk fanaan ba bët set di magal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi rek la ko nit ñemee def no ngi ci sant yalla di ci ndokkeel julit ñépp rek rawati rawatina nak di ci wa pigin rawati rawatina nak gox bi nga xamne ci le yi dekké ñoo dalal ñëpp ñoo ngi tatagal ñëpp ñoo ngi sargal ñëpp dafa fekk ne ñii bu ñu toogee ñoo tudd keneen ci seen kanam waaye bu dul woon loolu dinañ tudd kenn par kenn ndax jotaay bi wolof day naan tàgge bu ne am na jàppal diw am na ñu ràññeeku ñoo xam ne mënoon nañ leen a tudd benn par benn ñuy ñoo xam kenn ku nekk it jaadu nañu tudd sa tur waaye gannaaw fii mooy comme ni ko waxee léegi ruuxul wujudi wa kaw ni markazuhu markazul wujudi gannaaw fii mooy markazul wujud soxlawuñu lim kenn ndax ñëpp fii lañ dajee naanu waaye yëpp fii la daje koo ci mën di dàq silsilaam fii lay dellu si kon jarul ñuy tudd kenn ndax bu buñ leen tuddee rek tudd nañ ñëpp bu ko defee ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi tatagal ñëpp waaye sax nag ñëpp ñu war a tatagal ndax fii képp ku fi ñëw fii nga bokk xana rek di def comme ni serigne bi def legi ci pular di sargal ñi nga xamne ne ñoo doon tag bi sallallahu alayhi wasallam ci jagle alaaji badara ndoy nga xamne mo moo emission wu jamur ba waxon na ko benn bis ba léegi xamul la lay wax dama ko seetaan ci emission mu tok di way ba ki doon présenté émission ba joy ba fatene sax mom moy émission bi te xam nga ci communication ki nga xam ne moom moo war a présenter émission dafa war a doon ku dëgër xol koo xam ne kenn waru koo gaaw a jooyloo ndax mu mën di contrôler ñëpp waaye keroog waa dafa jooy ba dañ koo mujj dimbale ci nam doon yeggalee émission bi ma gisaat ko mu ne ma émission boobu moo daq ci émission yi mës a def waajaa ngi nii moo yàqoon émission bu jàmbur bi di nuyu sëñ Babacar Diop. ak ñëpp rek yaakaar naa ñi ci des ñëpp dugg nañ ci tagg yonent bi nag mooy gën jililit lilit mën a def nag ay xantu anna madihahu laa yadxulu naara min urbin wa min ajami kuy tagg yonent bi du tàbbi safara loolu moom ñëpp xam nañ ko yonent bi bu dekkee yamal qiyam bu jugee danaan ana ñi ma doon tagg képp ku ma mës a lu toll chatru manam genn walu beuyit kay ñepp ñew mu ne kay jang ko ci kaw tribune bi ñepp deg boko jangé ñepp deg mu jitu nga top ci kawam bu ñewé ba buntu aljana mu feug comme koy gam kat di waxé ñom señ as malik sey ak ñoñu mu feug malik ne ko xana yow dañ ma téré ne buma ubil kenn kudul ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam yonent bi ne ko mana muhammad mu ne katchit ubbi nak yonent bi ne gaay ñew leen gaay di ñew benn par benn ba taggkat yi jeex mu door a dellu nag lijjanti ji ñeneen ñi kon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xéewal moo tax ñun suñu baat yi neexul waaye léeg ñu juux ci ndax ñu jëriñu ci loolu garanti la boo xam ne amul werante yàlla yàlla fay leen ak ñi ngeen àndal ñëpp maa ngi ciy ràññee ay sëñ Mor Sieur ñoom Adama fay sëñ Babacar Sow ñoom Chérif Kan jotaay bi ay tàggkati yonent bi bari nañ fi lool Haaj Moustapha Ka <laughs> sama waji ma ngi ziar ñep bu ko defé rek comme li serigne bi wax ñuy sargal wa koñ bi wa quartier bi xam nañ ne organiser dafa metti na nga baré koñ bi koñ ba koñ xawna na metti ci ñi dëkkee koñ bi ñu ngi leen ci jéglu bu baax waye di leen xamal ne seen jëriñ rek la bala kenn di ci jëriñu ñom ñoo ci ëppulé ba paré keneen soga am bala kenn di jëriñu ñom ñoy jëriñu ba pare keneen soog am bu ko defee ñoom ñëpp rek yàlla yàlla jottali leen ci yiw bi ndax mbiru yàlla du ka koy def kese moo ciy jëriñu waaye ka koy déglu sax te bañu ko da ciy jëriñu ka koy déglu fa mu mën ak lu mu sori sori bu fekkee rek bañu ko da ciy jëriñu kon yàlla ñëpp jëriñu yàlla ñëpp jëriñu ñu ngi dalal ñëpp sëñ bi wax na programme bi ni muy tëddee buñu paré dañuy jox shérif kan mu jangal ñu nuniya mu jangal ñu munya munya comme nim ko tàmm di defee xam la motax ñu jox ko ko bu paré ñu jox seigne babakar Diop momit amna lu lum ñu tamuri di defal bu ñëwee fi euh, man nak waxu na ko ci ben daara bu yagul ne Cheikh Tidiane daf ma jaaxal lutax mu jaaxal ma moy lu ñu jox yonent bi mu nanguko lu ñu jox yonent mu nangu ko ba ma fi ñëwee ba léegi Cheikh Tidiane lay dégg ñu fi woy te gamu lañ wax kon yonent bi lañ waroon way en tout cas bañ jeexalee burdu ba léegi teg ci nuuni ya ba léegi Cheikh Tidiane lañuy ñuy way est-ce que sax am na différence diggante Cheikh Tidiane ak yonent bi amul de na boo woyee Cheikh Tidiane yaa ngi woy yonent bi boo woyee yonent bi yaa ngi woy Cheikh Tidiane kon nag sëñ Chérif kan moom la ñuy jox sëñ Chérif kan waajal rajo baa ngi ñëw ci yow incha allah nga tagal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdoulahi kan Diamakakounda ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar salaamaaleykum wa rahmatullah